Euh, monsieur Ba euh, man je damay dem directement ci vif du sujet bi. Mhm. mooy euh, euh, le ministre Mansour Faye. Mhm. dafa nekk dafa am détenir avec lui benn audio boo xamante ne euh, le Pastef Ousmane Sonko da ko doon saraxtu à la limite. Mhm. pour am rendez-vous avec le président Macky Sall loolu loo wax ci loolu. waaw xam nga man loolu démb démb liir naa ko buñ ko bindee. dina si tontu nag si ñetti pàcc mun naa ko jox une réponse politique mun naa ko jox une réponse juridique mun naa ko jox une réponse communicationnelle dama njëkk a commencer la réponse sur le plan politique mooy euh, moi je demande solennellement au, au ministre Mansour Faye que je respecte beaucoup qu'il arrête de nous demander notre autorisation ñun bu njëkk bi sax bëgguñu woon tontu euh, ñu pousse ñu tontu mu def conférence de presse am avec son fameux sonaan prip ma génne ko bon mu pousse ñu bañ ne prip mu ñëwaat moo je pense que il est temps que mu bàyyi di ñu demander autorisation maintenant au-delà de ça gis nga commu gis nga communication y toujours le non di et le sous-entendu sénégalais yi bëri dañoo yaakaar ne moom nee na d'après lui que ça se passe en 2014 sénégalais yi bëri dañoo yaakaar ne dafa am benn audio bu 2014 or d'après ses propos fan yi ils ont mis sur écoute le téléphone de Ousmane Sonko man li mu wax si yëpp dama ne ah donc li mu wax mooy moom dañu déglu communication Ousmane Sonko loolu bokkul si si si si si si fair play en matière de politique quoi. Mm-hmm. ñu jox xam nañ ne politique tu donnes des coups tu en reçois mais nga am auto nga am pouvoir déglu ko Ousmane Sonko man loolu laay njëkk a déplorer. Mm-hmm. loolu mooy la réponse euh, euh, politique deuxième bi la réponse juridique li ñu tënk ñëpp mooy la constitution du Sénégal. dafa am article treize man lépp lu may wax damay bëgg nekk teg sa xam-xam ku am constitution da ko ubbi uh-huh. article treize de la constitution dafa ne uh-huh. le secret des correspondances de communication postale télégraphique électronique et, et téléphonique est inviolable pour ñu mën ko dindi il faut que mu nekk une loi lépp loo xam nit nga bind ko sa lettre nga téléphone waroo ko génne mais nag bu ñu demee ba nekk benn enquête loi bi may na benn loi ñu génn teg ko moom nee na da ko bëgg a sur la place publique bu dee lui c'est la loi mun na ko def dama bëgg rek mu réfléchir un peu constat dama koy dama koy renvoyer mu dem lire la constitution du Sénégal parce que loolu dafa am solo trop bi mu fi mujjee mooy la réponse politique la réponse communication gis nga euh, Fabienne ak mm-hmm. gis nga communication politique da koy jàng sooy def communication politique dafa am trois aspects dafa am solo bi si njëkk mooy la logos ñu ne est-ce que li ngay wax tegoon na si xam-xam wala est-ce que li ngay wax bu ko askan bi déglu dina si jëlee xam-xam deuxième bi ñu ne c'est le pathos ñu ne est-ce que li ngay wax intéressé na askan bi est-ce que askan loolu intéresse troisième bi nan nga koy waxee askan bi maintenant su ma résumé moom nee ne il dafa am soi-disant benn ojo un est-ce que boobu suñ ko dégloo dañ si jëlee xam-xam je pense pas uh-huh. deuxièmement est-ce que audio boobu tey jii fi ñu toll nii si si Sénégal est-ce que audio boobu suñ ko ah, dafa soxal askan bi je ne pense pas avec la façon de lire je je pense pas donc voilà trois réponses yu may jox le ministre Mansour Faye avec tout le respect que je lui dois. mais est-ce que tamit euh, moom c'est pas une façon de montrer à Ousmane Sonko que euh, il faut stopper que fu mu nekk nii mënul nekk. à chaque fois di attaquer nit ñi te nit ñi duñ ko tontu. voilà est-ce que c'est pas une forme aussi de communication parce que euh, Ousmane Sonko est un homme politique mais à polémique. est-ce que cela aussi ne risque pas de de de noircir li nga xamante ne mooy image am. koo xamante ne dañ koy gis comme koo xamante ne rek à chaque fois day tooñ nit ñi noppi après am na ay nit yoo xam ne sax dañuy xalaat ne. daf la mos a euh, euh, la a tooñ Ousmane Sonko. non. daf ma ne. dafay ñi nga xamante ne tout le temps si nguur gi. dafay nekk tout temps di génne comme kii wu ay 94 millions ay yëf yoo xamante ne dañ naan dañ koy porter plainte. dafay dénoncer ay yëf yoo xamante ne à chaque fois est-ce que loolu tamit du ñu ne que nit bu boo xamante ni nitu ay la est-ce que du noyé damay laajte. non non parfaitement man je suis démocrate ah. dama lay damay changer benn mot rek. Mhm. souvent les Sénégalais disent Ousmane Sonko dafay dénoncer. Mm-hmm. Ousmane na ne dénonce pas Ousmane Sonko déconstruit. Mm-hmm. moo tax gis nga ñun parce que on ne part de politique on fait du marketing politique. Mm-hmm. ñun soo def marketing politique da ngay jóg jéem a séddoo nit ñi nga teg ko si xam-xam. mooy convaincre teg ci xam wala nga séddoo parce que nit aussi il faut nga respecter leen sooy wax ak ñoom. maintenant soo demee ba sekkaka ay nit am na ñoo xam ne mënuñu convaincre dañuy manipuler gis nga la mooy manipulation en politique. mooy ngay fen sa askan. deuxième bi mooy nga la mooy mooy ngay làq dëgg sa askan troisième bi mooy nga tere ko wax dëgg ñun Pastef on dénonce pas on déconstruit cest manipulation lañ déconstruit maintenant au delà de ça dama bëgg aussi débat bi bu ñu ko yemal si ay maa la la lan mooy cest lan mooy le soubassement li ko indi mooy lan demal wuyu OFNAC uh-huh. soo ma permettre mu développer un peu parce que xam nga pour lan xam nga pour lan mu am solo uh-huh. OFNAC dafa am lu ko fi Sénégal dafa ratifié la convention des Nations contre la corruption en 2003. Mm -hmm. la même année en 2003 le président Ablaye Wade crée la commission nationale de lutte contre la non transparence la corruption et la concussion boobu décret la woon. Mm-hmm. parce que dëkk soo bëggee mu dox ñi nekk si di indi seen xaalis biir dëkk bi. Mm-hmm. fexe ba lépp lu ay luubal ay détournement nga dindi ko fi. Mm-hmm. bii Macky Sall ñëw bii président bii président Macky Sall ñëwee en 2012 mu bind. mu voté la loi organique 2012-30 du 28 décembre 2012. mu mmh. mettre en place OFNAC qui est une autorité indépendante qui est à la président de la République. léegi demal wuyu boobu mu ne du ma wuyu aussi il faut ñu ñu ñu wax loo xam ne xam-xam gars dañ ko fa jëlee moom dafa ne su ma waaye du ma dem. waxaat ko deux fois jël article 101 de la constitution. Mm-hmm. effectivement gis nga nag amul benn pouvoir juridictionnel. OFNAC mënul def garde à vue. Hmm. OFNAC mënul def mandat de dépôt OFNAC mënul def mandat ne mais article 3 loi organique dafa ne OFNAC nit bu ñëwee wax ko day saytu analyser su paree da koy jox le procureur. Hmm. mais dans cette loi OFNAC peut entendre tout le monde dans cette loi OFNAC maintenant képp koo xam ne dana jàpp ci fraude pour une dans tes fonctions publiques et privées. fonction ministérielle c'est public ñu ne OFNAC peut entendre tout le monde moom mu ne léegi. article 101 de la constitution moo tax du ma wuyu moo tax damay leeral foofu rek mun moo tax nañ na nekk xam-xam article 101 dafa wax dafa wax jëm si président de la république wax dem si premier ministre wax dem si yeneen ministre dafa ne président de la république en fonction haute trahison rek lañ ko mun a accuser te suñ koy jugé haute cour de justice moo ko jugé ñu ne le premier ministre et les membres du gouvernement mooy ministre yi dañ ne bu dañ def crime wala délit mm-hmm. haute cour de justice moo leen di jugé mm-hmm. mais su nee le ministre Mansour Faye na dem OFNAC oo ñu ko pour juger ko. nekkul pour àtte. oo ñu ko pour juger ko nee naa la léegi OFNAC amul benn pouvoir juridictionnel dañ ko oo pour entendre ko. mais nag bu bu bu OFNAC pare day day jox rapport bi le procureur. foofu nag procureur mun na oo ministre mu bañ xam nga pour lan la séparation des pouvoirs. Mhm. le ministre le ministre à la présidence c'est l'exécutif. le procureur c'est le judiciaire foofu il faut mu am autorisation président de la république. loolu il faut mu leer moo tax article 101 bi jotewul ak dara article 103. loolu yëpp xam nga pour lan la gis nga Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne la lutte contre la corruption ñëpp soxla jàpp parce que loolu gis nga aussi article 25 alinéa 3 de la constitution moo ko wax. tout citoyen a le devoir de défendre la nation. et de lutter contre la corruption et la concussion li may wax nii. nit ku nekk mën nga ubbi la constitution du Sénégal article alinéa trois moo ko wax. da nga xalaat ne Mansour euh, Mansour euh, xamu ko Mansour Faye xamul lii ngay wax nii. non non non non déggoo ma ne la mun na ko xama mhm. mais nee naa léegi fàtte. Mhm. dans la communication politique il a la manipulation. la détention mais débat boobu je pense que Mansour Faye moom ci boppam daal na mhm. koy tranché ndax démb il a reprécisé sa pensée. ndax wax nañu euh, bu ma ko loi permettre mais gëmuma ne. Mhm. loi permettre may parce que article 3 bi moom li mu wax je pense que sànq rappelé nga ko mooy. of nag mën na convoquer toute personne boo xam ne. dañoo cité turam ci benn mbir pour am ne askan wi ñu am lu leer ci euh, boobu mbir mais sànq yéen a ngi doon wax euh, souvent c' est votre argument yéen waa Pastef da wax naan euh, demal wuy ju of nag lu mu jotee ak Ousmane Sonko def na lii wala def na laa mais foofu aussi il faut ñu rappeler que n' mhm. avait pas moo dem Saint-Louis ne li mu wax ignorance la. ak arrogance donc foofu est-ce que nekkul Ousmane Sonko moom moo attaque Mansour Faye ba moom mu répliqué ak cette fameuse euh, audience. ok xam nga euh, xam nga souvent man souvent bu ñu may poser question damay éviter naan bu doon man parce que du man. Mhm. man la première chose man la première chose que je dis ni su may mhm. demande conseil souvent da ni da lay demande conseil nga ne ko non bu doon man. Mhm. mais c'est pas toi. Ousmane Sonko man du ma Ousmane Ousmane Sonko il est sincère. il est victime maintenant si c'est est sincère maintenant c'est un crime parce que li mu wax li mu wax loolu est-ce que dëgg lu dëgg mais il a dit ce qu'il pense il est uh-huh. sincère uh-huh. Ousmane Sonko il est juste victime de sa sincérité uh-huh. parce que vous savez pourquoi parce que ñun tàmm ñoon tàmm tàmm ñoon dégg genre genre discours politique boobu te ñun Pastef bi ñëwee on a mis quelque chose en amont et en aval avant le discours il y a le parcours après le parcours y a l'action gars yëpp dañ tàmm ñëw nekk dans le discours politique dans le discours politique mais avant il y a, il y a le parcours après il a l'action tey jii je demande solennellement au ministre mu def lu mu war a parce que tey pour l'instant nous sommes dans l'action on sur les VAP on sur les dons de sang euh, sur les plus de vacances à domicile donc dans l'action quoi parce que c'est nouveauté gis nga moo tax ma ñun dañuy def marketing politique xam nga boo demee def marketing dafa li naan mais il faut ngeen daw attaque bi nga xam ne da ngeen ko attaqué Mansour Faye. ba mu ngi daw débat bi. di wax ci seen i réalisations mm-hmm. il a dit boo nee prip ma génne ko ñu ne prip. <laughs> mais loolu mooy piège bi nekk soo ma mayee autorisation. sama may ma envoy foofu benn huissier. Mhm. dama ragal Ousmane Sonko bu ko nee envoyé huissier mu ñëwaat ne ma envoyé huissier bu góor wala bu jigéen <laughs> loolu ay ragal rek. Mhm. xam nga loolu lu lu muy tekki. Mhm. c'est du déjà vu. affaire Petro-Tim petro ne woon il n'y a jamais eu ordre de mission ñu génne ordre de mission bi envoy ñaari IG enquête IG ñu dem enquête ne non non ñu ne ok ordre de mission am na waaye amul rapport ñu génnee rapport bi bi génne rapport ñu ne rapport du président jotagu ko ba léegi donc day nekk genre escalade c'est du déjà vu quoi moo tax su ma la nee mhm. dañu éviter escalade bi aller vers mhm. l'essentiel quoi lan moo mhm. intérêt Sénégal actuellement quoi mais sur la gestion de l'aide alimentaire ou population bi lan ngeen lan la Pastef di reprocher euh, Mansour Faye non moom dafa def le 21 juillet le 21 juillet dafa def benn conférence de presse dañ ko jox benn enveloppe 69 milliards mu def mu ne bi mu bi mu bi mu bi muy fay kit alimentaire yi ak transport yëpp tout ça mu ngi coûté soixante soixante milliards euh, huit cent nee na dafa économiser huit milliards deux cent loolu la ñun ñu jël ko càmbar ko damay jël damay damay simplifier rek neewoon nañ kit bu nekk muy jar soixante six mille. Uh-huh. man uh-huh. damay teg ay chiffres leer. Uh-huh. ñu ne léegi ils vont le donner à un million cent mille personnes. mooy dañ dem dañ dem sa registre national unique bi. Mm-hmm. y avait cinq cent onze mille zéro quatre-vingt-quinze personnes mm-hmm. ñu def ciblage communautaire génne fa quatre cent quatre-vingt-huit mille neuf cent cinquante-cinq boo defee la somme ça fait un mm-hmm. fa soixante-six mille rek soixante-six millions boo su boolee cent mille soixante-douze millions ñu ne ko ah, monsieur le ministre on pense que mënoo fi réaliser économie milliard di moins voilà ñu ne ko mu def ñu nekk mënoo réaliser bénéfice euh, après le commissaire à la sécurité alimentaire tontu. Mm-hmm. ne ne oui da ngeen parce que le kit on l'a pas acheté à 66 000 on l'a acheté à 54 000 moom wax loolu. Mm-hmm. te biir conférence de presse bi mu ne noonu pour l'aide alimentaire on a dépensé 54 milliards. Mm -hmm. alors que le DAGE na 59 milliards la ñu ne ko d'accord on vous le mm-hmm. mu ne léegi 59 milliards yi ñu boole si maintenant transport mu nekk 2 milliards. loolu day dem milliards te bu xoolee bi euh, Ousmane Sonko génnee président du palais dafa ne buñ si jënd ay oto buñ si neexal kenn moom bu muy tontu nee na ils ont dépensé huit cent soixante dix millions pour rémunérer cinq mille vérificateurs. Hmm. loolu boo ko boolee sa dépasse largement li mu wax. moom loolu quoi man damay damay chiffre loo xam ne on vérifier man su ma li may wax rek dama naan mën nañu ko vérifier. maintenant foofu damay permettre rek euh, le commissariat à la sécurité alimentaire soo xoolee rapport. rapport IG rapport IG bu à la page 91 damay ko ñi ko soxla. Mhm. le commissariat à la sécurité alimentaire a été épinglé par l'IGE. pourquoi un il n'y a pas de stock de sécurité alimentaire deux ceeb bi dañ des non ayants droit je le répète ñi soxla nañ dañ télécharger le rapport de l'IGE mhm. à la page 91. ñun li ñu koy reproché ah bi ñu ko reproché ñun on n'a pas porté plainte Guy Marius Sagna ak le professeur Babacar Diop ñoom ñoo dee porte plainte ñun lépp lépp lu ñu bind dañ ko amul benn attaque bu ñu def personnel chiffre moo wax ni c'est des chiffres yoo xam ne ku nekk mën nga ko vérifier ñun lii on a calculé nekk ah juum nga de bu dee calcul yi nga def yii calcul yi baaxul mënoo fa économiser mu tombé instant boobu le professeur Bousso di jooy ne amul xaalis ma ne ah tiens kii nee na économie génère huit milliards deux cent